coow lu bari loolu boole kook mbooloo mu takku la ñu nemmeeku fële ca diwaanu Liberté cinq mu yemook ñaareelu fan yi nga xamante ni enseignants yi fa la ñuy daje ngir dellu ci dëkk yi nga xamante ni fa la ñuy jàngalee ngir tënku rek ci ndigal li nga xamante ni président Macky Sall euh, joxe na ko Mamadou Lamine Dianké di ab enseignant fële ca diwaanu Fatick mën nga ñuy expliquer situation bi nga xamante ni moom la ñuy dund jamono ji. waaw waaw comme ni nga ko gisee rek xëy na sax nit ñi wàññeeku nañu waaye euh, situation bi xaw na jaxasoo xaw na jaxasoo tuuti ndaxte man mii di wax ak yow maa ngi fi depuis euh, treize heures mënuñoo fexe ba dem am na ay euh, manquement yi fi am si gestion affaire bi vraiment mais bon mu ngi nii daal di wàññeeku ndànk-ndànk. Euh, nit ñi ngi dem benn benn mais jàppoon nañ ne waroon nañ mun a départ au plus tard 15 heures ndax 14 heures la ñu joxoon rendez-vous ñu ngi fii depuis booba léegi euh, mënuñoo fexe ba dem ñu jàpp ne nag loolu manquement bu grave la. c'est vrai que am nañ quelques gars yi ñu gis fii ñu ne ñu erreur moo amoon ci liste bi ñu joxoon Fatick dañoo joxoon Fatick euh, ñu liste boo xamante ni dafa tax ñu prévoir benn bus bon information bu ñu jot si gars la rek ah liste bu ñu joxoon Fatick dafa taxoon ñu prévoir benn bus pour Fatick malheureusement dépassé na ko xam waral euh, mbir mi mais gars yi ñu ngi ñuy euh, assuré nañu dinañ dem euh, quelque soit alpha daal ñu ngi ne daal toog di xaar situation bi en tout cas c'est un peu déplorable jàpp nañ ne mën a gën lii ndax comme démb dundoon nañ situation bi waroon nañ tey jël les yoo xamante dina tax lii du répété daal. daa ñu ngi convoqué fii depuis 14h ñu ngi fi presque depuis midi 13h boobu ba léegi mënuñu am ay bis Fatick ñu ngi nuy toog amuñu te ak situation bi nu mu demee rassemblement bi fii amoo si gisoo sax li nga fu nga war a raxasoo ak yooyu noonu wala ku la jox max ak yooyu noonu ñu ngi daal ñu ngi toog te xam nga loolu moom laalante bi ak microbe yi moom ñu ngi dox mënuñ ci lenn. barrières yi respecté wuñ ko en quelque sorte. non non respecté wuñ ko respecté wuñ ko fii moom respecté wuñ ko dégg yàlla. mais bi nga xamante ni président jël na ko pour ngeen dellu ci classe yi loolu amul risque. am na risque kay am na risque moom dëgg yàlla parce que xale yi xale daa fragile balaa nga balaa nga nga mën a jàng fokk nga kii tuuti nga nga nga am santé bi daal santé avant tout loolu ah métti na trop trop trop métti na ba fu métti yem ñu ngi nii añuñu waaw ñu ngi fi depuis 13 heures añuñu mar ndox sax presque doo gis. ban lañ leen joxoon rendez il est presque 17 heures. bien sûr heures. waaw ba léegi mais nee na bis amul la wax loolu la wax ñu ne bis amul ñu ngi nii fii di xaar rang ngi bari na instant yi xamuñ kañ la ñuy dem ak kañ la ñuy egg waaw xamuñu kañ la egg te ñun instant yi dañuy village recul lañ nekk bu ñu yeggee dañuy jël oto jaxaaw jaxaaw jëlaat beneen pour dem dans le village donc yàlla xam ban heure lañu ñuy yegg actuellement waaw. waaw bon dañoo waxoon ne la. bi. bon malheureusement gars yi euh, chamboulé liste bi jaxase ko biis bi ba mu taxawee ñu xam ne Fatick la jëm am na ñaari bus yu dem Fatick yu départ ñaar xaw ma ñett ba bus yi taxawee nag gars yi jaxase rang yi daal di dugg léegi malheureusement bon ñu ngi taxaw euh, léegi rang yi ngay gis nii Fatick lañ jëm mais boo taxawee si rang bi bon ça revient au même ak nga doon toog si kër gi ndax quelque soit alpha nañ dem léegi nag man gisuma intérêt taxaw si naaj bi moo tax ma ñoo toog fii ndax quelque soit alpha dinañ dem ci ndogal yi nga xamante ni président de la république euh, joxe na ko ñoom nag euh, d'accorduñ ci ndax nee nañ bëri na ay risque waaye mënuñu si lenn lu dul euh, jëfe ndigal ndax ay agent de l'état lañ en plus ay waaw waaw pas sûr moom sûr moom defu ko bon mais on va essayer de faire avec Euh, quel que soit alpha comme président bi décidé na ba pare même si c'est pas sûr mais comme décidé ba pare bon nañ dem ñu jéem a xool euh, ñu moytu respecter les mesures barrières comme ni ko gars di waxee mais en fait euh, ñu ñëpp xam nañ wax dëgg yàlla suurul man waxuma sax dara mais par exemple maa ngi jógee Dakar dem benn dëkk boo xamante ni benn cas signalé guñ ko fa benn village bu sori laay dem benn cas ko fa nga war a dem troubler quiétude waa dëkk boobu seen dal bi ñu am ne ñoom amuñu feebar bi nga dem foofu Euh, wóorul dañuy nekk di xalaat ay mbir waaw est-ce que dañ la bàyyi yàgg sa doom ak euh, ñoom ak yàgg seeni doom ak yooyu est-ce que dinañ ko def bon loolu risque la gros risque la mais bon euh, à l'impossible ni la tenu kilifa bi nee nañ dem bon kon dañuy dem jàpp si yàlla ñaan rek affaire bi yem fi bon je pense que loolu moo tax ñu convoquer tous les enseignants ndax bu amee bu amee ñu ñu fi nga xamante ne mën nañ fa jëlee retirer ay quelques enseignants ñu ñu compléter je pense que loolu mooy idée bi loolu loolu moo tax ñu convoquer tous les enseignants yow tu que lan moo waroon a nekk la meilleure solution ci cas bi fi mu toll nii jamono ji. ah ñu jël ñu jël quelques enseignants rek ñi nga xamante ne mënoon nañ ko gérer parce que instant bi yaa ngi gis fii ay maman ñu yor ay liir liir yu ndaw presque man gis naa fii sama benn collègue mu ngi yor des jumeaux presque congé am ça ne fait même pas deux semaines bu mu jeexee te xam nga loolu daa métti ku ci ku yor ay jumeaux nga war a dellu noonu yor ay xale dellu ci classe yi day métti situation boobu daa métti parce que loolu tamit waroon nañ ci sóoraale. waxu daa mel ni ci ministre bi lu mu annoncé woon loolu bokkoon na ci mais xam nga boo boo naroon kii directeur yaa ngi convoqué ñëw leen ñëw leen fokk ñu dem te xam ku ci ne ñoom ñoom ñoo jiitee directeur yi te ñoo ñu jiitee fokk ñu dem parce que ñoo ñooñu tamit suñu jiit la direct. man man moom amoon mon avis moom risque la moom waaw parce que mënoon ñu xaar ba affaire bi dal côté septembre ñu ñu ñu ñu yóbbu ñu waaw ñu ñu jéem a planifier seen kii mais actuellement ni situation bi nii nga xam ne en xale yi nga xam ne am na ay am na ay dérèglement te ñoo ñoo gën a fragile même bu fekkee ne xale bi dafa sain sax mun na jël maladie bi yóbbu koo këram au niveau euh, des de ses parents. waaw moo tax affaire bi risque la daal ñun ñu ngi dem rek xam ñun nous sommes des employés de l'État sax ñoo bañ dañ ñoo woo rek dañuy dem waaw. mais si fois classe yi nombre bi ñu leen wax ne moom la ñuy maintenir ci classe bi bu ko ëppee yéen lan moo nar a nekk seen taxawaay ci loolu. ah pour mu ëpp ko. mais ñoom comme que wax nañ ñu ñu wax ñu dem bàyyi dañu dem rek ba xom constaté ba pare rek les faits parce que ñun euh, convoqué nañu enseignants ñu ne def dispatcher classe yi ñu dem instant mënuñu xam xamuñu sax xamuñu condition yi fa nekk actuellement man mënu ma la ko wax foog ñu dem ba gis après ñu mën doog mën a réagir waaw actuellement nii moom xamuñu lu ñu fay fekk wax dëgg yàlla waaw. ban message ngay lancé. ah pour au niveau des enseignants. nañ def rek des patriotes nous sommes des employés de l'État nañ dem rek dañ ñoo nañ dem liggéey rek waaw sinon dinañ wax loo xamante ne na enseignant yi bëgg ñoo liggéey dëkkaluñu fu ñu dëkkul xam nga enseignant daan gars yi dañ koo yeb waaw léegi nag ñun nañ bañ fu ñu woowee nañ fa nañ fa bañ a wuyu rek waaw ñun gaal nañ dégg ndigal rek dem liggéey waaw ndax liggéey lañu ñu gëm daal waaw ok merci beaucoup